dal leen ak jàmm suñu mbokku internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal di leen remercier nag ci attente bi comme tous les jours ni ñu koy defee seen kaa tey nag dañuy ñëwaat euh, ak yeneen kaa yu doy waar comme nag dañuy suivre thématique bi euh, mais laata loolu da ngeen di bàyyi rek euh, ma nuyu ñi ma bokkal plateau bi commencé ko ci DJ Mo DJ maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay di amaat mbégte contentement teewaat. encore une fois ci plateau seen cas en tout cas nee naa leen tey lépp luy cas moom seen cas daf koy détaillé jox leen ko am na solo lool xam naa ne yow moom li ñuy andi dina dis loolu mais da ngeen may bàyyi rek ma nuyu suñu tata tata Souka laa koy wax xam naa ne namoon ngeen ko trop tey nag mu ngi nii fas yéene àndaat ak ñun tata Souka maa ngi nuyu. waaw Mia ma ma chérie maa ngi lay fay maa ngi nuyu aussi Momo di nuyu ñu ñu àndal émission seen Cas les internautes di kontaan lool rejoindre leen ci plateau bi ma absenté quelques jours. merci c'est toujours un plaisir. pour nou de vous retrouver <coughs> comme tous les jours ni ko tàmmoo di ko defee rek tey nag beneen cas la ñuy andi mais ba tey dañuy des li nga xamante ne moom mooy actualité des li nga xamante ne rek moom mooy réseaux sociaux tey nag dañuy waxtaanee li nga xamante ne moom mooy influenceur bu ñu ne influenceur wax ñi nga xamante ne dañuy nekk ci réseaux sociaux di liggéey à travers digital la question mooy lan la ñuy véhiculer ñi nga xamante ne ñu ngi leen di suivre mooy ñun ñuy beneen génération bi tey ci lan lañ ci jëlee DJ moom ma bàyyi la ñu tujjee ak euh, premier cas bi. Euh, maa ngi maa ngi rafetlu bu baax a baax tey nag dinañ waxtaane lu am solo. Mm-hmm. parce que tey dañuy jël benn cas ci cas yi parce que Sénégal dëkku cas la dafa bari ay cas. te dem na ba boo toppee cas yow sax sa kaaw bopp ngay mujjee doon cas bi ñuy waxtaane mooy kaawu Nabou Dash xale bi nga xam ne moo lëmbee lëmbee réseaux sociaux yi. xale bi nga xam ne moom je m'en fous lay dundee xale bi nga xam ne lu ko neex mu def te dara du ko ci fekk tey loolu la waxtaane waaye aussi dinañ waxtaane tuuti tamit ci li nga xam ne mooy kaawu ndeyloo euh, Pawlish ak aussi ki nga xam ne mooy DJ mm-hmm. Kheucha mm-hmm. Aïcha mi ngi noonu noonu lañ ko déggandoowee am na solo lool lool muy euh, la femme euh, la célèbre Nabou Dash comme ni ñu tàmmoo di ko waxee dañuy rentrer rek ci li nga xamante ni moom mooy l'important Nabou Dash ki nga xamante ni influenceuse la elle est suivie un peu de tey jii bu ñu doon poser la question Nabou Dash qu'est-ce qu'elle apporte de plus à la jeunesse. Nabou man de jàpp naa ne li mu apporter la jeunesse la jeune génération mooy pervertir leen yàq leen. ah oui parce que Sénégal li may wax dëkk la boo xam ne léegi li ñu mën a valoriser mooy li bon. Mm-hmm. Sénégal dañuy fekk ku bon. jox ko benn code de popularité boo xam ne dafay jéggi dayoo alors on n'a pas besoin de ça parce dañ naan. Euh, la jeunesse c'est l'avenir de de de du pays donc bu ñu demee ba tey ñun ndaw ñi amuñu dara loo xam ne tey dinañ mën di référé wu ci ñooñu Nabou Dash nekk koo xam ne tey moom elle se permet de tout faire parce que gis nga le problème mooy xam nga lan ñi nga xam ne je m'en fous la ñuy dundee. Mm-hmm. ok nit ñi dañ naan c'est sa vie privée non non non am na fooy dem fooy toll nekkatul yow quoi ce n'est plus toi mais dafa nekk loo xam ne. Euh, lu ñëpp bokk la parce que tey nabudaas day influencé tey nabudaas am na loo xam ne bu ko defee am na xale yoo xam ne dañuy jàpp ne lii mooy dëkk alors que non sori na dëgg donc ces de personne dafa mérité ñu recadrer leen et que man li ma ci njëkk a souligner mooy que nañu bàyyi bu ñu recadrer les cas comme nabudaas léegi euh, site yi wala média bi bu ñuy bu ñuy bu ñuy articuler naan nabudaas répond à ses détracteurs non non non ñooñu détruire wuñ Nabou Dash amuñu temps bi mais dañ koy recadrer parce que Nabou Dash gisuma très sincèrement lu ñu war a roy ci moom quoi du royuwaay Sénégal am na ñu ñu war a mun a roy mais Nabou Dash du royuwaay quoi très sincèrement donc il faut qu'on arrête et il faut que moom mu arrêté parce que ça su suffit dañu soxla Sénégal boo xam ne dafa am ay ndaw yoo xam ne dañ leen di ware jaay leen au niveau international mais tey Sénégal dafa mel ni benn produit la am muy ñu bon lañ fiy suivre ñi bon lañ fiy topp ñu bon la ñuy wër alors que lu baax li Sénégal parce que Sénégal ku ko wax xool ci source ya dëkku teraanga la dëkku baax la dëkku respect la waaye nag dama koy comprendre parce que doomu aadama bu demee ba yow amatoo rus amatoo jomb amoo kersa amoo dara kon kooku moom très sincèrement mun nañ ko considérer comme mala man foofu laa ko teg. foofu laa ko teg du ma nëbb samay wax parce que tey bu ñu demee ba Nabou Dash elle se permet de tout faire même dem ba ci moom ak jëkkëram bu ñu nekkee mu ñuy woon soxlawuñu ko on n'a pas besoin de savoir li muy def ak jëkkëram ay nit a ngi fi jigéen a ngi fi gën ko jonge lool gën ko mun a toppatoo jëkkëram te waruñu ko soxlawuñ ko quoi moom jëkkëram bu ñuy reyanteeg lu ñuy def suñu yoon nekku ci ko li nga wax noonu am na solo très rapidement mais damay bàyyi lan la ci xalaat ci li nga xamante ni moom mooy Nabou Dash ban lay def ci li nga xamante ni moom mooy jeunesse bi voilà man la cas de Nabou Dash euh, je vois que ni ça n'apporte euh, rien de positif hein, si la jeune génération au contraire dafay pervertir nos valeur parce que euh, pour man du référence parce que on a des des modèles des références yoo xamante ni suñu jeunes yi war nañ leen xool euh, je préfère ñu jël ñu ñu ñu ñu ñu indiwaat ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekkoon suñuy référence les femmes de DER jeunes ñu ñu ñu ñu ñu dem ci ñoom jéem a gëstu seeni valeur mais pas ñuy dem di déglu nangu daaj mu leen di pervertir te gis nga doomu aadama dafa am loo xamante ni bu dañee ci moom dafa mel ni moom ma la ñoo yem kersa jom fulla fayda mais nga am retenu parce que y a des choses yoo xamante ni je me dis que ni sa liberté d'expression mu ngi yem fi liberté d'expression l'autre commencé surtout nag la vie privée la vie privée qu'on évoque ça ak plus de retenue li nga xamante ni moom moom lay condamné jusqu'à la dernière énergie mooy li concerne les deux conjoints jëkkër ak jabar kooku nit ñi seen yoon nekk si parce que c'est privé nañu nañu nañu nañu xoolaat li nga xamante ni daal moom la Nabou Dash di jox les les internautes ñu xool li nga xamante ni moo ci nekk lu bon ñu jël ko teg ko fële parce que Sénégal toll na foo xamante ni jeunes léegi amatuñu repère mm-hmm. perte lañu valeurs toll nii parce que euh, les réseaux sociaux dañ ciy jouer négativement te je pense que si je prends l'exemple de cette femme là kooku au lieu mu apporter lu positif mais je dis que lu négatif lay apporte en quoi elle peut nous apporter ba mu commencé def ay live ba pare lan lu positif la apporter la société sénégalaise lan lu positif la apporter les jeunes je ne vois pas benn benn ban importance la ñu am di ko déglu wala di ko may bës benn bës ba muy àgg ci yenn xeetu perversion yi di ko wan li mu sekk ak jëkkëram kooku ça n'engage que lui et qu'elle et mhm. voilà. am na solo lool li nga wax noonu muy taasuka euh, influenceur la ñu wax walla ñëpp ñi nga xamante ne rek ñu ngi nekk ci wàllu réseaux sociaux tey jii dafay jaadu ñu taxaw seetlu li nga xamante ne moom la ñuy jàllale di ko jox euh, ndaw ñi di ko jox euh, internet yi ah, ku nekk am nga ci wàllu ñu xool lan la la mooy bi est-ce war na war nañu mën jël lool noonu ah jox ko ñi nga xamante ne mooy ndaw ñi leen di topp di leen suivre et li ñu mën a constater mooy euh, gens niche ñu noonu la plupart du temps ce sont des gens tellement suivis dans le mm-hmm. léegi na suivi boobu noonu reste à voir ñi nga xam ne ñu ngi leen di suivre lan lañ bëgg a jàngatee si ñoom parce que moo boo déggoo ñu doon wax influenceur nit ki day influencer ci lan influencer ci wàllu liggéeyam influencer ci jaar-jaar bi mu am influencer en quoi tey ji bu nekk da ngay influencer négativement je pense que loolu noonu ñi nga xamante ne ñoom ñoo euh, nekk ci wàllu média bi ak yooyu am nañ ci seen wàll parce que tamit euh, am na ay ndaw yoo xamante ni xëy na mentalité tolloowuñu te comme li ñuy wax lii këf seen xel dafa yomb tey ji yenn yi ñuy gis dañuy jàpp ni moom mooy gën tey day jaadu ma topp loolu noonu responsabilité parents yi tey lan la ci biir loolu. Euh, fi may njëkkee mooy ci média bi am nañ ci part de responsabilité mhm. bu rëy parce que tey lu fi lu fi fës ñoo ko fësal. à part internet. lu fi fës média bi ñoo ko fësal. de gis nga li may wax muy directeur de programme PDG ku mu doon am nga doom te sa doom. mu ngi suivre kook nga xam ne yaa ngi koy valoriser te ci lu bon loolu lay yëngu. il faut que ñu xam loolu parce que tey maa ngi yàq doomu jaabur mais alors may fàtte ne ñu ngi yàq sama doom parce que selon ki yàq doomu jaabur mu ngi yàqaale sa doom donc gis nga Sénégal dafa am loo xam ne daf fi yomb. star dafa chaque jour ma wax ko staru Sénégal moo yomb Sénégal waneel sa taat star nga Sénégal saagaal ndey star nga Sénégal waxal lu bon wala nga yàq nit star nga mais non star fierté bi xam nga lan la war a doon nga doon référence nekk source d'inspiration loolu moo tax ñuy wax te gis nga yenn parent yi très sincèrement wallahi azim bu ñu munoon seen i doom duñ ñëwaat seen doom yi ñu jur actuellement billaay doo duñ leen jur parce que c'est désolé désolant du moins yow nga am doom wallahi azim kenn nawloowu ko man damay bañ ñu naan diw yor na diw am na non boo amee te yow am am am am ay limite amoo nit da war a libre mais tey boo tolloo foo xam ne yow amoo amoo accès fenn bi parce que le cas na Nabou Dash tey bon mu ngi nekk ci réseaux sociaux yi di def lu ko neex mais noo am na foo xam ne mënu fa dem am na foo xam ne eggu fa parce que du royuwaay nañu bàyyi di roy si ñu bon ñi Nabou Dash du ko ñuy roy du roy waay bu ñu bëggee roy wax nga ko sànq say wax les femmes de Nder mhm. mais elles ont défendu leurs valeurs dañu xeex ak ñeneen ak ñeneen ya am na soxna jaara keneen ak keneen ak keneen euh, dama musa waxtaan ak benn mag mu ne ma wàll wi jeexul waaye dañu gisul ndey yu pare pour jur leen et normal da ngay gis jigéen boo xam ne bala moo mën a sol sol loo xam ne ngeen baal ma ween yi nekk ci biti mhm. nga gis jigéen loo xam ne day sol tubéy boo xam ne boo ko gisee da ngay xam li ci biiram donc la pour lan gis nga li am valeur li tax góor di la gis wala li tax góor di intéressé wu ci yow mooy kumpa mais bi ñu demee nag ba nëbbatuñu li nga xam ne moo am valeur non le Sénégal a des problèmes et des sérieux problèmes donc le cas de ak ñeneen du moom kese. Mhm. parce que tey Nabou Dash dañu ciblé. Mhm. mais am na fi ay yeneen Nabou yu gën a bon sax. Mhm. le cas de keneen ak keneen ak keneen ñooñu association la. association la boo xam ne li leen tax a jug mooy yàq ndaw ñi. man je sais pas kan moo nekk seen ginnaaw parce que ni ñu amee fit lu leen neex ñu def. en tout cas certainement lu lu lu lu nekk seen ginnaaw quand même. en tout cas doon na wax moom moo doon na xam naa li mën a wax ci genre influenceur wala jet setteuse comme on dit ah bëri na mais ñu fàttali rek tey du loolu kese la leen andiloon kaa mais dañuy jàll aussi ci keneen koo xamante ne temps yi gis nañ ko mu def euh, bruit bu bëri ci réseaux sociaux yi donte yaa gën a def ay bruit sax euh, sa xarit la duma ko nëbb Pawlish Mbaye la ñuy waxtaanee ak yi ne moom mooy Ndeye Aïcha yëkkati nañ lu am solo jamono ji mu mel ne ñu ngi ci ay fiançailles mais ñu ciy déploré rek <laughs> moom mooy yenn mots yi nga xamante ne nii tasuka doy na waar tey ji bu ñu dégg ay yenn mots yu pervers ci diggante ñaar ñooñu nga xam ne jeune lañu te ci ñenn ñi sax dañuy jàpp ni dañuy jour ci inconscience su kenn ki est-ce que loolu noonu tey jii lan la lan lan lay jur au fil du temps. ben euh, Mia moi je condamne la presse d'abord parce que je me dis que la presse am na si benn euh, benn responsabilité bu mag parce que ces genres de personne en général ñi nga xamante ni amuñu benn conscience bi wala amuñu benn maturité bi par exemple ku ci mel ni ndeyloo foofu noonu il faut toucher du doigt euh, li nga xamante ne mooy le mal mooy les réseaux sociaux yi nga xam ñoom ñooy def la promotion de se de ces innocentes là. Mmh. réseaux sociaux yi aussi nañu guider seen éthique seen morale ak seen déontologie parce que euh, franchement des propos yoo xamante ne ça heurte la conscience des gens bu ñu koy déglu. Mhm. Euh, y a de quoi avoir peur. donc léegi euh, man dama koy yedd parce que dama naan jigéen la mais peut-être dafa dañ dañ koy utiliser. Mhm. que ces genres de personnes yi nga xam dañuy jouer ci mati ci innocence nit ki. aussi il faut ñu toucher si du du doigt. Mm-hmm. parce que il euh, je pense que le mal pour nga faj ko il faut nga dem ci racine bi te problème bi foofu la. Mm-hmm. donc euh, qu'on interroge notre euh, euh, honnêteté professionnelle notre conscience professionnelle mais avec éthique morale et déontologie. Ndeye Lo aussi. Je vais situer la responsabilité en deux, la presse mais ses parents. Je me demande ana ay waajuram parce que je pense que waajur am na un rôle capital bu muy jouer ci éducation doomam mhm. am na loo xam sa doom bu ciy dugg nga xam ni lii fa mu jëm xeeñul lu neex mhm. wowal sa doom nga ramener ko à la raison mhm. man daal je pense que loolu daal ñaar yooyu interrogation yooyu noonu war nañ ci toucher ñu xoolaat ci situer foofu les responsabilités merci mu nekk euh, lu am solo rek mu mel ni c'est pas une première common on Sénégal léegi moom tàmm nañu pour créer fi buzz ah il faut nga jaaree ko nu ne mm-hmm. tous les tous les tous les chemins sont bons comme on mais tamit bu ñu fàttee li nga xamante ne ñoom ñu leen di suivre di leen bàyyi xel di leen topp ba tey dañuy rester rek ci même angle bi parce que Ndeye dem na tele gis nañ ko. ñu waxaat suñu frère boobu nga xamante ne moom moo ko invité woon ba relancer Ndeye laay mën a wax sax parce que comme on disait entre guillemets fayoon na bësam jeexoon na ah suñu maam boobu moo ñëwoon jël bës bi léegi nag ñu bëgg andiwaat sur euh, li nga xamante ne rek moom mooy scène bi mais est-ce que tey c'était la meilleure manière boo xamante ni noonu lañ koy defee euh, tout d'abord euh, li may wax rek mooy que gis nga jigéen ñi nañu xam ne jigéen royuwaay la mm-hmm. te que gis nga la valeur de l'homme ne dépend pas le nombre sur le nombre de ses années je dis bien la valeur de l'homme ne dépend pas sur le nombre de ses années gis nga dafa am lu garaaw muy TikTok bi ñu tàmm dafa dem ba dafa bokk si suñuy plan national koo koo gis mu ngi bëgg buzz koo gis mu ngi bëgg siiw te siiw du jàmmi borom ki may njëkk a pointé du doigt mooy Kheucha DJ Kheucha DJ Kheucha dafa am posture boo xam ne dafa nekk ci moom quoi très sincèrement moom am na loo xam ne war na ko mën a jombale boppam parce que tey sénégalais am na fu ñu koy xaare mhm. te mu ngi ci lancé bu baax soxoruma mais tey bu mu nee dem ba xam ne ndeyloo ndeyloo très sincèrement man jàpp ma ne elle est consciente quoi man moom saa mhm. moom mhm. je le dis elle n'est pas consciente du tout tey bu mu nee dem ba jël ndeyloo di ko di ko di ko di ko teg nii comme benn poupée di ko jaay mel ni benn coxeur la moom xëcha teg ko ci kanamu Pawlish et que très sincèrement li gën a garaaw gis nga bu ñu seetaanee mook Pawlish fu ñu mujj du du neex te ndew ndew ndey loo ana ay waajuram ana papaam wala ana yaayam bu amul loolu lépp ana ay magam wala tey membre de sa famille donc nañ ko jël recadré waat ko wallahi azim gis nga gis nañ fi ay cas yu jote jàll lu ci mel ni ay jëy laa ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñi nga xam ne jëy euh, doot nañ fee def ay affaires yu nga xam ne doy na waar nii rek la demee woon seeni parents ñoo seetaan loolu ñoo seetaan loolu tey ba mu ba mu ba mu ëpp loxo Kheucha man je suis ton frère li ma lay conseiller mooy mën nga fo mën nga def humour mais am na loo xam ne tey sa profession mayu la ko doo comédien t'es un présentateur et que yow société bi dafa am fu mu lay xaar donc muy Pawlish Pawlish moom graw sénégalais yi xam nañ koy Pawlish sénégale yi du ñu wax ba compter ko duñu ñu wax ba parce que déjà xam nañ ni mu mel donc boo jëlee Pawlish nga di ko macro ak ndeyloo même bu nekkee ci foo mais attention mun na jur leneen. Mm-hmm. et que lépp sa ndodd lay wéeru. donc il faut ñoo xam ne gis nga tey doomu aadama loo bëggul ñu def la ko maanaam ñu def ko ki nga bokkal ndey ak baay doo ko def keneen ndey loo bu ñu demee ba xam ne moom mii tey am na lu ko dese. Mm-hmm. mais nañ ko jël recadré waat ko nañ ko jël am fuñ ko tegaat nañ ko mm-hmm. accompagner. est-ce que comprends nga mais pas pour ñu jël ko pour jàppe ko benn poupée et aussi li may wax mooy que déglu nañ ko rok mook Pawlish doon wax duma ci jaar donc c'est grave. Mm. ay termes yoo xam ne dafa xaw a ci ay xale yoo xamante ne tey jii dara euh, léewu leen du jëkkër du du union du du fenn mais si tu te permets tey jàkkaarloo naan ko entre guillemets ngeen baal ma par exemple je vais le dire en français <laughs> peut-être plus modéré. Mm. t'es sain tu sais que j'aime la ces genre de choses yoo xamante ne tey jii ah xale yi ñoom ñu ngi koy xool. te li ma jaaxal mooy xam nga leen. si vous me vous me le permettez avec euh, Momo. Mm-hmm. man dama damay wax ni foofu ñun dañu war a tiit. Eh, parce que am na terme yoo xamante ni dafa war a ànd ak kersa. Mhm. am na terme yoo xamante ni kenn waru ko wax sax nit ñi di ko dégg waxuma la ñu koy étaler ci la toile. Mhm. donc foofu aussi euh, man na damay pointer toujours du doigt ñi nga xamante ne ñooy promouvoir ces personnes innocentes wala di ko di di di ko def ci toile bi ñoo ñu aussi. Mhm. nañu ànd ak seen conscience que ëllëg tey. lépp lu ñu def ci lu loo xam day promotion day def promotion lu bon. Mhm. ëllëg comme ni ko mon frère moom moo waxee léegi mun na leen rattrapé waat. Mhm. te la société chaque acteur la ci la mhm. société. dañuy wax ni euh, l'avenir se fera avec la jeunesse. mais une jeunesse pervertie. donc war nañu xalaat ci sunu jeunes yi suba yi loolu moo tax gis nga affaire euh, terme yooyu noonu moo tax dafay répercuté wu. ci les les espaces publics les écoles par exemple. les espaces publics le comportement des jeunes. Mhm. mais mais les jeunes dañu dañu pervertir par yu mel nii. Mhm. te xam nga lu ma jaaxal ñu arrêté xam nga lu ma jaaxal Sénégal. Sénégal boo waxul waxu taat sénégalais boo waxul waxu taat pour moom waxul lu baax. Mhm. non très sincèrement quoi. sénégalais balaa gën a kontaan wax waxu taat. donc il faut que il faut que ñu xam ne très sincèrement dëkk bi sax daf Sénégal daf ñu soxla. effectivement soxlawuñu Sénégal boo xam ne. Sénégalu ndaw ñu bon la. soxlawuñu Sénégal boo xam ne. Sénégal boo xam ne dañuy dañuy promouvoir lu bon. effectivement soxlawuñu Sénégal boo xam ne dañuy wone lu bon rek. Mm-hmm. et que Jamra aussi am nañ ci am nañ ci part de responsabilité. Mm-hmm. Mm-hmm. parce que tey tey tey xeex boo koy xeex da nga koy xeex ca ba mu ba mu ba mu ba muy ba muy doore. ndax tey bu ñu bàyyee lii ba mu dem ba toll ci benn niveau bi. ñu naat ko xeex leneen lay créer mais genre yi gis nga ko xale bi da ngeen koy gunge. topp ko dem ba ci ay famille waxtaan ak ñoom. comprendre nga ñu téye seen doom teg ko. fañ ko war a teg parce que gis nga wallahi azim jamono ji toll na foo xam ne ku dimbalewul sa doom yaa ngi koy lor jamono ji bon na parce que tey ñi ñi ñi bon rek la ñuy la ñuy la teg micro yi ñi bon rek la ñuy jox euh, caméra yi mm-hmm. te xëcha encore une fois y a des présentateurs ñi nga xam ne bi ñu fi nekk ak léegi defuñu fi dara lu ñu leen xeebe mm-hmm. malgré nag bon gisaguma loo def mais bu koroog bi moom sénégalais yi très sincèrement même ku la ko waxut metti na ko le cas de Boubacar Diallo mais kooku source d'inspiration la. Mhm. ndaw ñi ñu ngi roy ci moom. le cas de Pape Djibril donc kooku it ñu ngi roy ci moom donc xëcca da nga toog nekk ci posture boo nga xam ne xale nga ay xale lañ ñun ñëpp donc éviter yooyu Pawlish soxla woo ko parce que tey Paw Pawlish amul dara loo xam ne mun na la ko apporter au retour yow yaa ko mun a apporter dara donc lépp looy defati war nga ci war nga ko calculer très sincèrement ndeyloo nañu ko jàppale psychologiquement psychologiquement parce que man première video bi mu def bi ma ko seetaanee dama ne non ça va pas quoi ah, très sincèrement Sénégal valoriser lu baax mhm. parce que bëri na fi Sénégal nañu wone suñuy culture nañu wone racines yi nga xam ne mhm. parce que dañu toll foo xam ne il faut que ku nekk jamono ji di wone li baax li nekk Sénégal mhm. parce que léegi kone Sénégal danaa la lu bon moom doguma la ci loolu nga wax parce que buñ koy wax am nañ lu loo xamante ne ni am na solo loolu jamono jiite yaakaar naa ni war nañ ko mën a euh, wone mooy par exemple de braves femmes yoo xamante ne ñu ngi fi di def liggéeyu góor ñooñu tey presse bi bu ñu doon xool man ñun ci presse bi la ñu bokk mais dañuy wax suñu bopp parfois tamit ndax am na ci mhm. part de responsabilité pourquoi pas ñu dem xool yi noonu boo génnee ci koñ yi fii di nga gis benn femme bu nekk di liggéey mécanicien boo génnee di nga gis benn xale bu am 7 ans 6 an di def ay architecture yoo xamante ne ni malgré que ni ay carton la koy defaree wala ay détail c'est tellement joli te loolu noonu tey ji ci loolu la waroon dem tasuka le cas de euh, mhm. gis mu invité ay xale yoo xam ne mhm. dañuy defar ay institut ay affaire mm-hmm. normal yoo xamante ne ni c'est de la technologie xam nga te jànguñu ko peut-être mm-hmm. yàlla moo leen may don bi pourquoi pas def promotion loolu noonu en pas mm-hmm. en parlant aussi de buzz buzz tey doon na loo xamante ne tey ji nit ñi mën nañu mënuñu mesurer ampleur bi ndeyloo bi muy def micro trottoir je peux comprendre mm -hmm. parce que dañoo dajeeg moom par hasard voilà elle s'est exprimée à l'improviste mm -hmm. ok mais c'est pas une raison tey ji pour jël ko teg ko léegi moom qu'est-ce qu'elle gagne dans tout ça. li gën a graaw mm-hmm. dama si déglu fenn foo xam ne mu ngi wax ak Adamo. Mm-hmm. dafa jël ay vidéo xaritam yónnee ko Adamo gis nga demagul fenn gis nga li mu créé. Mm-hmm. xam nañ commencé nañ ko xam mu ngi wax ak Adamo est-ce que yéen a ngi imaginer. déjà inconvénient yaa ngi ñëw. donc man je vois que ne gis nga Sénégal man je pense que ne. école yi amatul njëriñ quoi. Mhm. nañ ko tëj parce que koo gis mu ngi TikTok ñëpp siiw la ñuy wër. Mhm. Sénégal nañu cueillir de la connaissance. nañu wut xam-xam xale yi. gis nga wallahi azim seen yaram yi ñuy exposé soxlawuñ ko. man euh, je pense que Momo mhm, Mia je pense que foofu les parents foofu lañ leen gën a soxlaa parce que toll nañ foo xamante ni kuy waajur war nga jël sa njaboot nga nga gën a nekk regardant ci sa njaboot. parce que Sénégal fi mu toll dafa mel ni àdduna buy bëgg tukki la. ndaxte xale yi bu ñu exposé wul seen bopp exposé wuñ seen yaram ñu ngi dugg ci ay erreur de jeunesse yoo xamante ni mhm. conséquence yi demee dans dix ans dans quinze ans la koy xam ndaxte ku ci nekk ëllëg ñaan nga bu dee góor ñaan nga am jabar am ay doom mhm. bu dee jigéen ñaan nga am jëkkër am am ay doom mhm. te ëllëg muy amul kenn ku ku ñaan ñu naan sa papa moo fi defoon wala sa yaay moo fi defoon mais nag loolu noonu nag il pour loolu ñu mën ko éviter il faut que les euh, de famille ou bien les parents ñu mhm. jouer seen euh, rôle dafa mel ni j'ai senti une démission totale des parents ci côté boobu noonu mhm. l'éducation de base que les parents nañ ci def l'accent mhm. parce que éducation de base boobu noonu ñu ci deful accent sénégalais sénégalais fa ñu jëm wala société sénégalaise fa mu jëm suba kenn xamul fan na te li ma waxoon sànq rek ci commencement émission bi laay waxaat on a des références nañu wàññi tuuti les réseaux sociaux parce que da ngay gis élèves sax day dem école du sax def sa concentration ci cours yi ñu koy jox ah. moom mu ngi yore téléphone am mu ngi koy nëbbu mm-hmm. jël concentration yëpp def ko ci euh, téléphone bi mm-hmm. loolu mooy indi nit ñi nekk ci école examen yi par exemple di yore ay portable mm-hmm. parce que euh, dafa mel ni démission des parent moo am wala la société moom moo xaw a def benn pente bu tax ndaw yi aussi ñoom xamuñu fan la ñuy teg seen tànk voilà te Souka da nga da nga wax lu am solo loo xamante ne ni yaakaar naa ni euh, war nañ ci bàyyi xel yaa ngi dégg donc nag euh, internautes suñu internautes loolu lañ leen andiloon tey comme euh, kii ni euh, seen cas bu leen ko fàtte mu nekk mbirum influenceur mu nekk képp ku nekk ci wàllu réseaux sociaux képp koo xamante ni tey jii yaa ngi am loo xamante yaa ngi koy véhiculer ngir yàlla rek dañ leen koy ñaan bàyyi leen xel couche d'âge bi nga xamante ne ni ay innocent lañu. Mhm. ay xale lañu te tey jii désorienté leen dafay yomb yóbbu seen xel ci leneen dafay yomb te ñooñu dañu am euh, benn wàll bu important à l'avenir ci suñu société parce que ils sont appelés à devenir quelque chose dans ce pays et pour ce faire c'est le moment dès à présent ci basage bi dañ koy préparer donc moom euh, moo ma bàyyi rek nga tàggoo ak suñu mbokk internautes yi tey euh, maa ngi maa ngi gërëm ñëpp di jaajëfal ñëpp naan leen nag waaw Sénégal moom jamono ji dañu soxla très sincèrement jeunesse bu consciente jeunesse boo xam ne dafay pare pour euh, doxal dëkk bi mm. mais pas jeunesse boo nga xam ne dafay passer à côté donc nañu gën a xoolaat suñu royuwaay ko fi nañu gën a xoolaat fu ñuy teg suñu tànk parce que nag euh, ni ma koy waxee rek mm-hmm. jeunesse dafa éphémère dafa gaaw mm-hmm. et que te loo ci ñàkk mënoo ko rattraper il faut ñu xalaat ko mais damay mm, sant ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi doon seetaan ba pare mm-hmm. di wax ki ma solal mu ngi nekk euh, papa papa business nekk ba Kédougou mën ngeen ko woo ci numéro am 77 342 54 30 papa business moo jaar fii xam naa après dinaa leen booleeg moom rek chaque jour ma def leen ni ma leen doon def. <laughs> am na solo gis nañ ñu ngi ñuy def mais ñun tamit dina jël suñu revanche atasuka. ah bien sûr foog ñu jël suñu revanche ñun tamit. xam naa damay profito tàggu suñu mbokk internet yi di leen jox rendez-vous prochaine émission avec euh, Sen mhm. donc di remercier ñëpp aussi ñu ñuy suivre mais aussi di wax ni na ndaw ñi gën a bàyyi xel ci li nga xamante ni mooy Euh, suñuy euh, suñuy valeur ak li nga xam mooy suñuy aada te ñu wàññi un peu les réseaux sociaux parce que li muy yàq ci seen éducation moo ëpp lu mu ciy defar wa bu dee sax am na lu muy defar ci seen mm-hmm. éducation donc euh, je pense que on revoir Aïcha xam naa ni ci noonu rek la ñuy tëjee émission bi mais bu leen fàtte cas boo koy traité faw nga sukkandiku ci dara tey ji ci fee yi nga xamante ne moom moo nekk d'actualité ci loolu lañ mën a sukkandiku rek euh, pour waxtaanee li nga xamante ne mu ngi touché euh, jeunesse bi ci noonu lañ leen di joxe rendez-vous incha allah demain sur Equivox TV à ne pas rater merci